murit ak kuy jullit yow laa di woo ci bisub seex jiili mii nuy màggalal ku ko màggal yàlla màggal ak payam ndax dafay xeej jam bu daa sax ci ndigal tax ba lum ñaanit mu def loola ci kun waa ji kon waajal te ñëw jël lim fi jal woote bii yow boo ko déggee na nga ñëw wuute wii yiw ëpp naa def kon ñëwal <clears throat> na nga ñëw duy ca ba feesal sa ko dem booba bis kuñ ca duyul kat mu doyal na ko waajal yow ci pas-pas bu dëgër na ko waajal it ci kaamil boo wasal jàng loo man ci xasaa it tey jullil ngeen ji yonneen kon lu kon lu fi yiwu da ko jël allahuma salli ala sayyidina muhammad salli asalaamaaleykum bokki taalibe yi noo ngi nii ci biir kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké toog ak doomam ju tedd ji Serigne Moustapha mu jël ndigal ca magam Serigne Cheikh Mbacké Cheikh Abdoul Khadir xam ngeen ni nag Serigne Cheikh du yëkkati lenn lu ko Cheikh Amadou Mountakha joxul ndigal Cheikh Amadou Mountakha Mbacké jox ko ndigal mu jël rakkam ju baax ji sëriñ Moustapha yàlla nu yàgg a moom jox ko ndigal ak Serigne Sidi Mbacké mii mu Cheikh Abdoul Khadir nga xam ni moom lañu teg liggéeyu màggal gi ci loxoom mu yore ko at yii yëpp mu di ko def ci lan la ñu jublu nag bisub ku kenn dul fàtte ku kenn dul fàtte mu ne ci xol yi te du ci jug mukk xol bu ne ambal ko yiw boo ko bëggee laaj kooku mooy kan mooy Cheikh Abdou Khadir yilimaani teeg ba léegi moom ci jëmmi boppam moom la ñuy fàttaliku bis bi mu ganee woon jamono te sëriñ Touba wax ca maam Thierno Birahim la mu ko waxoon bu bis ba jotee nag ku ñëw ca bis ba am ca la Thierno la Serigne tubaa daaloon Thierno kon la Serigne Touba daaloon Thierno Birahim ku ko bëgg a am ñetti fan ci wutam xarit di la neuf ci weer wii nu jëm da ngay ñëw ci bis Cheikh Abdou Khadir Mbacké kenn du ko fàtte ñu ñaanal ko fàttali ko ñaanal taawum bu baax ba ko wutu woon sëñ Modou Abdou Khadir ak njaboot gi yëpp nu toog nii nag ak sëriñ Moustapha mu sant nu yëkkati sunu kaddu jox ko sëñ Mamoun Boussa mu yëkkati kaddu nu doog a dem ci sëriñ bi arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil seydina muhammadin bi ahlihi wa sahbihi wa sallam taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Moustapha ñoo ngi lay nuyu jaare la nuyoo ci yow mu dem ci sëriñ Cheikh jóge fa dem ci Cheikh Mouhamed njabootu Cheikh dem ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di leen sant bu baax ci bis bi nga xam ne mi ngi agsi ni ko waxee fàtte waaye lu ñu yeesal ci xol yi rekk lay doon ndax moom boo dee wut lislaam boo ko seenee lislaam a ngooga boo dee wut jaamu yàlla boo ko gisee ma nga noona boo dee ne ana julli boo ko seenee ne ma nga noona lépp luy lu baax sëriñ Tuuba doon na ko doonal leen na ko ko muy taxawe lislaam di biir lu ñu ko taxawe ba tax ñëpp a ko amee lu cant a ko amee njukkal sëriñ Moustapha mii li ci mat wax lépp dana ko wax waaye dama koy ubbee rekk ci bayit yoo xam ne boroom xam-xam bi ko wax Cheikh Abdul Xaadir la nataal dafa wax ne akrim bihi min waliyin saada man sabaqu min alkiraami jamaatin wa afdaada qad kaana tarraaka maa lam yur maa lam yurdi xaaliqahu maa lam yurdi xaaliqahu wa wa kullu maa huwa yurdi kaana mii xaadaa mu ne sanga ngoogu hmm. bu tedd bu màgg bu sang mboolem gaa yu baax yi te jiitu woon ak ñum jamonoonteel gaa yu baax yépp mu sang leen ci ay jikko ak melo moo xam ay mbooloo lañu wala par kenn kenn lañu mu ko dee firi noonu koy waxe mais nag sang boobu yi nekkoon na koo xam ne kii aji gàddaay la loo xam ne lii boroomam gërëmu ko tarraaka moom da koy firee gàddaay ndax jàpp ko ba di ko bàyyi baadaye niliifresh wa kullu ma huwa yóbbi kaana mi xaaga lépp loo xam ne lii yàlla gërëm na ko ma ngi ko ne nangu tuñ kon nag kooku ni am laay waxe lu waay bëgg muy njëriñul tey ëllëg te suñ sa daa ko wax te di ko wax muy ku ne ndab la nga am na ko indi mm-hmm. nu mu toll boo dikkee ñu doyal la ko ba bis bi dellu siwaat ak jàmm ñu àndaat ko nii ñu ko ànde Cheikh Mouhamadou Moustapha noo lay gërëm li nga war a wax rek doy na sëkk xanaa dama koy ubbee ka ci ndigalul xalifatul aam li taifatil muridiya ginnaaw bu ci Cheikh Mouhamadul ginnaaw bu ci sëriñ Cheikh demee muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbacké yàlla ko yàlla sàmm te wattu ko ginnaaw boo xamee ne si sëriñ Cheikh dem na ca ba jot ci moom ndigalam ak jot ci moom mu jox ko daw ul axdar ci ñu mën a def màggal bi ginnaaw buñ amee loola ba noppi nag sëriñ Cheikh jox na ma ndigal ma jot li kàddu yii ma leen bëgg a jot li ngir fàttali leen bis bi nga xam ne mooy bis biñ daa baaxoo defal Cheikh Abdoul Khadir Mbacké di ci fàttaliku ak gane àddunaam mu war a tolloog ñetti fan ci weeru wolof wi ñu jëm waaye di war a tolloog ci weeru tubaab juróom-ñeenti fan di dëppoog bisu talaata ñuy ñuy ñaan àgg ci ak jàmm te defe ko ne ko borom bëgge mooy dundal ko bu baax a baax a baax a baax ci balañ caa àgg lu waaye man ci salaatu ala nabi lu waaye man ci njàngum alxuraan nu mu gën a bari ak nu mu gën a selle la ca gënal borom nag te gënal ci suñ borom bi nga xam ne moom moo moo moo moo ñu bind mooy lépp na ànd ak ixlaas rek na sell salaatu ala nabi na sell ka alxuraan yi nga xam ne mooy lépp di léppi sëñ bi na sell ñu jàngal ko kaamil yi yu bari ak xasaayiti sëriñ bii yi nga xam ne làmboo na lépp ndax buñ ko bindoon jox la ko nii na ko mag ñi daa bindee da ngay fekk lépp fees dell ak turi yàlla ak salaatu ala nabi mag ñi dañ daa bari turi yonent bi di ko wertal turi yàlla yi ñu xonqal ko waaye xët bu ñu la ci wan da ngay fekk mu fees dell ak loola te way wu ak salaatu ala nabi moom war a dem kon ku bëgg lu waay bëgg ci salaatu ala nabi gi ñu yàlla digal boo nee ci xasaay di mën ko ci amee yaa ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon lu ci waay man ci loolu nag ko defal bu baax a baax a baax ñu ngi koy digal nag daara yëpp fu daara mën a ne tàmbalee Touba tàmbalee Njaaréem tàmbalee Daaru Salaam tàmbalee Daarul Mooti ak këri Sëñ Tuubaa yëpp nag fu ci waay man nekk rek yi ma tudd ak yi ma tudd ak taalibe bi yi mën a ne te daara am fa rek nañ ko jàngal alquran ak xasida ñu ngi koy sàkku ci ñëpp ñu ngi ko yëgal nag mboolem bokk jullit yi waaye ñu njëkke ci mboolem yi lislaam yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëriñ bi ñuy ay bokk ñu bokk ak ñoom sëñ bi ñoom ñëpp mboolem kër yëpp ñu ngi leen ko yëgal teg ci kër yi mboolem kër yi sëñ seexal yëpp ñu ngi leen ko yëgal di ko teg mboolem wëlëre yëpp ñu ngi leen ko yëgal mboolem ko soppe ñu ngi ko yëgal ku ñëw it nañ ko daa waxee rek na nga indi sag bagaan hmm, te séentu boo àndee ko pasee ba nga àndal na ko turandoom daa defee yàlla yàlla mën na ko cee defee ci dara ji sëñ Tuubaa mi nga xam ne nag lu mu am ci moom la ko jëlee moom yàlla yàlla duyal la ko ni ni ngay ñaan Sidna Abdou Khadre nag mii turandoom nga am bis mu ne ku ne na ma indil bagaan ñi indi ñëpp mu romb ko rek yi yi daal di soppiku wurus waaye nag sàngtaat la yor yor yi soppiku wurus wurus waaye yëpp euh, daa duy ba fees mu ne ku ne nag fas yéex ba nga ma indi laala bi yéen loolu mi ngi ci téere yi. Hmm. <laughs> Eh, kon kon yàlla na ci yàlla dimbale bañ àgg ci ak jàmm moom nag. Hmm. doonoon na koo xam ne li war a jànge ci bisam ku bëggoon ay bokkam la ku bëggoon sëriñ Touba la ku bëgg ku mbokkal sëriñ Touba ku ne noonu la noonu la meloon te nag lii may wax ci moom noonu la njabootu sëriñ Touba gépp mel mag ñi dañ daa wax li ni ko sëriñ Modou bu sa waxee foofu moom. kan nujuumi man talqa minhum xiltahu kaana sayyidan axyaari ñoom ñoo ki biddiwa yam moo tax kuñ ci toll ci bisam rek bu ñu waxtaanee man nga ne kooku mooy sangu tànni te fekk bu indiwaatee keneen rek mu daal di mel noonu ndax li ñu am dañ ko jëlee ci moo tax mu ne eh, moo tax beneen waykat bi wax ne sa eh, eh, wa man yakuni cheikhul qadimu aban lahu tariqu awaadihi wa yanzuf wa yashruf képp koo xam ne am ganaar ko yan te sëriñ di sa waajur da doon ndab lu neex a jariñoo raqiqul xawaad yi bu ko arab ne waxee mooy ndab lu pegg ya eh, tuuti nga xam ne ku ne mën na caa jëriñu boo dee naan boo dee lekk mu ne ku sëñ bi sëñ Touba di sa waajur sa ndab dana neex a jëriñoo danga nga set da tedd kon moom mii moo tax yàlla mayoon ko mu mu doon koo xam ne dundam bépp mi ngi ko jeexal ci soññ ci yàlla fu lim ñu daa digal nag mooy istixaamatu rek ngir bëgg ñëpp jariñ ndax istixaamatu boo ko amee li ngay wut yàlla yëpp da nga ko am inna lazina qaalu rabbuna allah suma staxaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu allaa taxaafu wala taxshanu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kon loolu la kon moom ci loolu la nekkoon ba yàlla may ko nag mu saddal ñu ci ni ma ko xamee ñeneen ñi xame waxat daraba lana bi taqwaahu wa nasaatihi wa suhdihi wa waraihi wa xashiyatihi min allaahi wa xidmatihi fi diini wal imaani irdaan lil waahidi dayaani al masala al ahla lima yajibu an yakuuna alayhi man araada an yakuuna muminan musliman muhsinan sunniyan ci ragal yàlla wane nañu jàngal nañu ci akuk sellam akuk dëddoom adduna akuk sàmmoom ak lim doon liggéeyal diine ak ak liimaan ngir wut payug yàlla wane na ci misaal mu kawe ci ni ab jullit bu bëgg a nekk moomin dëgg nekk muslim dëgg nekk muhsin dëgg nekk sunni yu dëgg nekkoo na koo ko war a mel boo ko jàngee ci moom dana ko ci mën kon yàlla na ci yàlla jëriñ te loola ku ni mel hmm. yaay yaay mën a nekk dëgg-dëgg murit yàlla nañ yàlla kon nag yàlla yàlla eh, fekkeloo bis bi ñu defee ko nañ ko daa defe te kuy ñëw rek nga ndaali si bagaan te ànd ak xaqiida ba mu war a àndal wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamaaleykum dégg ngeen sëriñ Moussa Mbakke mu Cheikh Abdou Khadir eh, tubaarkàlla Mbakke nu wone sant beetalaat wenu ñu ànd déglu sëriñ Bousso ci turu bokk yi sëñ Alaaji Bousso ci turu bokk yi ñun ñëpp ñu àndandoo déglu ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci tudd Cheikh Seydil Mokhtar mi nga xam ne mooy naatiqu rasmi ci njabootu si Abdou Khadre gépp di coordinateur magal gi ñu ngi leen di nuyu ci aw turam di sant bu baax leen gërëm jot li kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jottali ci woote bi xam ne jot na ndigal ci ay kilifaam mu woote ko mu ne kon woote bi mu ngi woo mboolem ñi nga xam ne bii ñoom la bokkal mu am xaram te jiitu lu ci waaye mën a bokkee nag lu ci góor boore wala jigéen boore nag mu dee bokkee rek ñu ngi lay woo ci bis bii di ci woo mboolem njabootu Cheikh Amadou Khadim gépp nag tàmbalee ci Cheikh Amadou Moustapha ba ci Cheikh ci njabootu Cheikh Soxna Fatim ci jax ci njabootu Soxna Maymoun ci mujj <coughs> di ci woo mboolem mbokk mbokki yi nga xam ne bii ñoom ñoom moom bis bi ñoom ñooy woote kon ñu ci woo ñëpp rek mbir bi yëpp ak affaire jafaraat mboolem mbokk yëpp di ci woo itam mboolem seex si nga xam ne bi nekk si biir waxoon léegi yow mu aju ci Sëriñ Tuubaa bokk nag tàmm la ci ko jëkkal ñëpp ñu leen woo ci bi koy ñaan ñëpp si nga xam ne ñëpp dinañu teew mu ngi ci woo itam mboolem ñi nga xam ne bii rek ñoo daa waajal ay xéewal ci di indi ci bis bii te ñooñee wokk na ci ñoom njabootu uh, sëñ Seex ñan bi ak sëñ Seex Baara Mbàkke mi ak mboolem ak sëñ Seydou Seydou Ñang ak suñu garasement nekk mboolem mbokk yi nga xam ne daañu ko def ak mboolem turandoo yi nga xam ne bii dañu daan ay bagaan yu mën di ko indi di leen ci woo loolu Seydou Khadir yi mu ngi wooye yi Seydou Khadir moom xam ne gi ñëpp ay xaritam lañ la ñu itam ñëpp soppam lañu soppam ñëpp la képp ko xam ne julli nga rek kon ab xaritam la moom nag am na ñoo xam ne dafa dafa dañ ko xarit duñu julli moom waaye moom xarit julli ñu la xarit woon kon ñu ngi wooye ñëpp ñu ñooñu nag kii ko soppoon ak yëpp itam di wooye itam mboolem tamit turux suufi yëpp nag ak seen kilifa yëpp kilifa diine yi ak kilifa waaye ma rek seen du xaadir moom doon doon kilifa benn tarixa rek kilifa diine yëpp woo mboolem mbokk yi di woo ak suñu kër yooyu di woo itam mboolem munasama islam yi yëpp mboolem njaboot islam yëpp di leen ci woo mbooloo mu ma doon rek ak fu ma bokk rek seen du xaadir ci islam ngay woote kon moom ngay wooteel kon ñu ngi lay woote di ci woo nag kilifa réew mi ak euh, jëwriñam mag ji ak mboolem kooku moom yëpp wala gouvernement bi yëpp bawuñu kenn itam di jooy itam mboolem parti politique yi ne Sénégal gépp nag ak mboolem mbooloo yi fi nekk yëpp bàyyiwuñ kenn ñëpp lañ ci woo di woo tam la gouverneur création bi mboolem ñu ne service yi ne ci région bi yëpp ak mboolem ñu ne ci département bi yëpp ak mboolem ñu ne ci mairie bi yëpp ak kilifa yi ne ci dëkk bi yëpp ñu leen di woo kenn ku nekk rek fonc laa jàpp ñu ngi lay woo nga jàpp ñu ci laa jàpp rek la xam ne bis bi sa bés la kenn ku ne xam ne fàttali rek la kenn si gàttal foon mu am rek la waaye xam ne ni kenn fàttiwu kon ñu ngi woo ñëpp di bàyyi xel ñëpp nag sëñ bi li wax léegi ci ndab yi moom <coughs> mooy ku ne nay na sa ndab ma ne sama ndab mooy li des ci xarnu bi na mel li weesu woon lépp jafe-jafe yëpp ne li weesu li des ci xarnu bi daal ni mel la la ñuy ñaan kon sëñ bi sa ndab mooy loolu li des ci xarnu bi yëpp ne mel ni àjjana rek saa rek batti na kon sëñ bi daal ñu ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn mboolem daayira yi mboolem mbokk yi mboolem xarit yi képp ko xam ne sëñ bi daal sa xarit la woon booleel ci biir bi te jàpp nañu ne jullit yëpp seen xarit la moom wax. jërëjëf wax ji wax léegi nañu jox sëñ Ismaïla Mbakke mooy wax ci turu sëti sëriñ Abdul Xaadir yi su ko defee ñun ñëpp ñu ñu àndandoo déglu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen nuyu ku ne sa tur ak sa sant di jiital ci néew bi Cheikh Mamadou ba Bachir ñu borom yàggal ko fi. di ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir suñu borom guddaloo fanam di ñuy sunu kilifa ki nga xam ne moo taaral jataay bi ak sunu bàyyi sunu jëriñ Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Khadir di woote yi turu sët Serigne Abdoul Khadir yëpp rek nga xam ne ñoo àndoon liggéey bi mu mel ne liñ tuddee kiñ koy defal muy Serigne Abdoul Khadir dañuy wax ne lislaam toolub yàlla moom nag da cee amoon tool bu yaatu boo xam ne ni yaakaar naa bay na ko bay bu set wicc ba tax na at mu jot set yi di ànd di takk seen digg ren nag dañ ciy soññe rek dañuy wax ne daa am koo xam ne royteef la ci bépp murit muy Cheikh Ibrahima Fall kon nag bu ñuy soññ ab taalibe dañ lay soññee ci jëmmi Cheikh Ibrahima kon sëti Sëñ Abdul Xaadir yépp nañ takk seen digg ngir waajal bés bi di ci soññ it mbokk yi muy waa kër soxna xat yi ak waa kër soxna may rawatina taalibe yépp gis bi nag ñu koy defee fii ci kër Serigne Mourtada ci mbaar mi conférence sët Serigne Abdoul Khadir Serigne Ahmadou Mbacke mu Daarul Moxti di ci waxtaan muy tombeek euh, le 7 juillet di tombeek dimanche incha allahu rabbi bàyyiwuñu kenn nag li ko delee ci kër Cheikh Mahamadoul Moustapha fi kër Cheikh Mahamadoul Mourtada ak soppee Serigne Abdoul Khadir ak mbokk yépp ñu ngi woon ñëpp bàyyiwuñu kenn muy góor ak jigéen mag ak ndaw gis ba daal képp ku fa teew yàlla na sunu borom faj say aajo ndax sëriñ Abdul Xaadir loolu rek ko woon ci àdduna muy ràmm jàmm yi yaakaar naa dox na ci dañuy wax ne euh, néegub yàlla bii képp koo xam ne daana la fa gis nit nit mënatut a wax lenn lu mën a jàpp ci yow lu dul la kon nag bisum njëggal la ndax yaakaar naa maam Thierno ba sëriñ bi waxoon na ko demal yóbbu tur wa te yéexal say jéggu képp koo xam ne nii euh, romb nga ko euh, ba bis bay si képp koo xam ne nii tase nga fa moom jéggal nañ ko kon bisum jéggal la bisum jéggal boobu nag woote ko yomb na li ko sunu wajur waxee muy na ñëpp indi ay seeni bagage rek euh, ndax duy ci dana yomb kon nag yàlla nañu yàlla doole dimbale ñu fekk ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah dégg ngeen sëriñ Ismaïla Mbakke wax ju rafet ji mu wax ñu jox kàddu gi nag sëriñ mam Mor Jatra mu wax ci turu daayira bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu turu sunu jëwriñ sëriñ bi Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir di leen nuyu itam toujours sëriñ Cheikh Gumbal mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar nee na mi ngi woo daayira Dakar yëpp di leen soññ ci bis bii nga xam ne amuñ lu may moom ni noonu yi noonu lañ ci soññee mboolem. daayira yi nga xam ne ñoo aju ci sëñ Abdul Xaadir te nekk ci diggante ci réseau de bi yëpp ak ci réew mi fu ñu mën a nekk ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ Abdul Xaadir te nekk bitim réew ci mel ni fédération état yi te sëriñ Mor Sànq jiite ko di ci woo magi bi yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi te sëriñ Moulay Fall jiite leen ak ak sëñ Moustapha Ndiaye di ci woo mboolem daayira boo xam ne aju na ci njaboot sëñ Abdul Xaadir ak num ci ajoo ñu xam ne ñu daal benn bis la am mooy bisu màggalu sëñ Abdul Xaadir te ren mu war a nekk le 9 juillet incha allah ñu mu am programme bi ni ko sëriñ bi waxee nga xam ne ni nañ ko baaxoo defee ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi doon liggéey doon doon nekkoon fi wetam di ay taalibe yu mag di ay jëwriñ ci kër gi mu am bis yu leen jagleel bis yoo xam ne ci la ñuy waajale màggal gi ren le premier ñu war koo def ci suñu mbokk mux-mux yi ñu di ko def fii ci asalem bi sëriñ Abdoulaye bi foofu la foofu lañ koy defee muy le premier bu bu cinq heures ba ca topp di la trois ñu di ko defee njabootu sëriñ Mbàkke Kanni ku ne xam ni demee ak ak sëriñ bi ñu di ko defee kër sëriñ Maamun mu nekk fii ci yoonu euh, Surawe de ni ki noonu itam nag day bu ñu ko defee loolu ba noppi dañ koy def njabootu si Abdul Xaadir at bu jot ren na ñu def kër sëriñ Abdul Wahab moo Cheikh Abdul Xaadir muy doon la cinq incha allah ba ca topp mooy doon la sept bi mooy doon conférence bi nga xam ne moom la moom la sëriñ yi def kon loolu mooy programme bi nga xam ne moom lay moom lay màggal gi tëddee li ci des nag mooy fédération bi liñ daan def muy ren ku ne xam ne ne kër gi dafa nekk ci ay chantier ay liggéey yu mag ne fi bu noppee mu war ñu war koo seetal ba mu set wécc balaa gan ñee yegsi bis boobu nag ñu ko jàppale 5 incha allah kon nag képp ko yaakaar si Abdou Khadir wala nga sopp si Abdou Khadir ak foo mën a nekk ci ci biir dëkk bi ñu ngi lay woo ci mbale moomu di ci woo maire bi nga xam ne mooy maireu dëkk bi mu jàppale ci camion yi ak ak ay ay bil de serre ndax garawaa bi bëri na ci kër gi bëri na ci feece sañcee nga kër si Moussa kër si Cheikh yëpp fu ci ne ay garawaay dafa nekk yoo xam ne ko war déplacé kon loolu ñu jiwoo ci bi yëpp la 5 incha allah ñu daje fi bu ko defee le 6 euh, bâche yëpp noppi ñu teeru gan yi teral leen euh, kenn ku ci nekk sa bagaan gi nga xam ne moom nga sëñ bi wax léegi. nga mën koo di ba mu fees. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala. maa ngi soññ mboolem turandoo nekk ci réew mi ak bitim réew. ñu xam ne suñu bisub tërëndoo bi agsi na te ni mu koy waxee waxtu nekk ku ci nekk ñun la ci dimbali ndax xam nañ ne ñun ñu ko desee Abdul Xaadir fàggul nañ yiw réy woo xam ne mënatuñ koo fay lu dul su bisam dikkee ñu def ci liñ man ak liñ mën ñu si si abdonaan fu aw tërëndoo nekk rek ñu lay soññi bu baax li ci jiit na mooy li sëriñ bi soññee léegi muy jàngum alxuraan tërëndoo wu ko man na nga jàngal sa tërëndoo ak kaamil ba loo mam boo ko mënul na nga ko jàngal ndax li ko waay defal lu ko ci gënal mooy jàngal alxuraan karim nee na mi ngi soññee bu baax a baax ci alxuraan jooju waaye man te mën a jokkoo commission culturelle bi féeri ci daayira Tondoy yi wax leen ko bu ko defee ñoom daan dajale lim yooyu ngir rek xam ne liggéey bi ñu doon def mu jëm si Abdul Xaadir taxaw nañ ko nañ ko war it mooy addee ji xam ne daayira turandoo bu nekk daana ko barkeeloo ci liggéey bi ngir sàkkoo ko ngërëm bi loolu it soppiku nam daan doxe ñu jiite section yi ci réew mi ak bitim réew ku nekk seen daan lay soññ nga soññ nga ko daan àndal kenn ku ne nga dem ci sa jawriñ jokkoo ak moom la nga daan barkeeloo ci liggéey bi nga def ko foofu bu dul loolu yi ku ñëw ci kër gu mag gi da nga fekk ñu yor liggéey boobu bu ko defee ñu ànd ak yow wan la si ngay jaar ba mën a dugal sa barkeelu ci liggéey bi ndax lépp dañ ci sàkk ngërëmu Cheikh Abdoul Khadir ni ki noonu itam euh, bool yi nga xam ne muy ay ndawi barkeelu yoo xam ne tunglay Cheikh Abdoul Khadir daanañ ko defar di ko indi ci kër gi ngir di ko terale gan Cheikh Abdoul Khadir yi fi ñëw suñu Cheikh Abdou na mi ngi ciy soññee soññe na ci Serigne Djili Mbacke dël bi ngir mu soññ ci kilifa yi nga xam ne tàmbalee ko ci sëti Sëriñ Abdul Xaadir yi tudd Sëriñ Abdul Xaadir ñoom lañ koy tàmbalee kenn ku ne ci ñoom na nga ko daan defee sëñ Cheikh Abdou Mouhine mi tudd Sëriñ Abdul Xaadir it te jamono ji ñu doon Abdul Xaadir di ko def te la ca dolli nag mooy palaat yi nga xam ne section bi féete Touba dañ ko doon soññee ngir tolluwu ko mën nga jënd benn palaat ba loo man loolu itam lépp jëmaat ci liggéey bi ngir ak jàppande rek lay doon boo xam ne bu ñu dikkee fekk fi muy seen moomeel ñu mën koo taxawoo liggéey bi képp koo xam ne nag liggéey bi yaa ngi ci te bëgg ci am loo gën a leer it boo wootee ci numéro 77 ñaan yàlla yóbbu ñu jàmm te nanguñ lépp luñ jëf yàggal fi sëriñ Cheikh si jaboot si Abdul Xaadir yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen nuyu bu baax ñu nuyu mbokk taalibe ci ñun nag ñu ngi wax ci turu Serigne Touba Mbacke mi nga xam ne moo jiitee da ngay ahlu tarbiya yi nga xam ne ñoo jaaroon ci kër gi Serigne Touba Mbacke nee na mi ngi soññi ñëpp koo xam ne ci donga doo jaaroon ci kër gi ñu ngi lay soññ bu baax ci liggéey bi nga xam ni dénkoon nañu ci màggal bi li jiitu loolu taxawaay bi nga xam ne ñoo ko daan taxawu waaye jàngkati alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci mbaar mi nga xam ne ahlu tarbiya at mu jot ñoo ci def liggéey bu am solo nee na ñu teel a ñëw taxawu njàng bi su loolu weesoo ñu taxaw nañ daan taxawee ci biir kër gi nga xam lu lu fi ñëw ci wàllu xéewal ak yooyu waa ahlu tëb bi ñoo ko war a dalal kon nag mi ngi woo ñëpp ci njiitul Serigne Touba Mbacke ak si ci njiitul Serigne Afi Bousso nga xam ne mooy taxawu dongay ahlu tëb bi yëpp niñ ko daan defee rek at mu jot ñun ñoo fi daan jiitu di taw toppatoo bagage yi yëpp su màggal gi jàllee tamit ñoo fi mujj toppatoowaat bagage yi yëpp ni ñu ko daan def kon nag Serigne Touba Mbacke nee na ñu ngi soññi mbooleem koo xam ci donga nga bu jaaroon ci daara ji nga teel ñëw jàpp ci liggéey bi kon nañ ci daan jàpp kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp ñu màggal si ci jàmm ak salaamatan wa afiya delluwaat ci jàmm ak ci barke Cheikh Abdou Khadre ñu ngi siyaare ñëpp jërëjëf dégg ngeen nag kàddu yi fi jub yëpp ci ndigalal sëñ Moussa Mbakkam Cheikh Abdou Khadir toogal magam ju baax ji sëriñ Cheikh Mbakkam Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ni wax na ni sëriñ Moustapha doy na ma ci lépp te mu doy ko ak sëriñ Sidi mi ñu teg màggal gi ci loxoom xam ngeen ne bu ñu yendoo ci njàngum alxuraan mi ak dusu durus xasida yi ba guddi jot nag ñëpp it ku nekk fa nga nekkoon ak sa kër da fay jóge ni ñëw ci baas bi Xaadim géey moo fi fanaan jàng ba bët set loolu ñu di ko ñaan ñépp ñu taxaw ci ànd ko ak turandoo yi su ko defee turandoo yi ak taalibe yi yépp nu fanaan ci biir baas bi ànd ak xaadim ba fajar jot nag ñu ñëw tàllalaat sëñ Cheikh Mbakke Cheikh Abdou Khadir suñuy loxo ñaan sëriñ Muntaxa mu yàgg fi ku ne xam ne diggam ak sëriñ Abdou Khadir ingénieur yooyu doon naaw ma di ko wax toujours ma nga amee woon mbul te booba seex Abdou Khadir seex Muntaxa mii la gane ji woon kon bis bu ne seex Muntaxa fonk na ko waaye bisu seex Abdou Khadir raw seex Abdou Khadir nag ku feeñ ci bisam ci lu baax dootoo nëbb xanaa dégg ngeen la ministre boo xoon Sëriñ Lamine Diop nee na booy dox ci àll ba penku réer la boo séenee seen Abdou Khadir ne kabaroon mooy penku l'islam jëmu ko Sénégal yëmu ko ku mu jur yar na la teg nay taalibéyam ci yoon ci biir juma la doon ci biir jàkk ci sappe si la doon tànn xaritam kon bis baa ngoog di bis Cheikh Abdou Khadir ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu nu ñaan nag sëriñ Cheikh yàlla na fi yàgg téwéer